Yeah. مصور لهم يروا بل جالب الداجة Musul la dunia o, malunya le fatata le biya wolo. sumane sumandanu manna kanyawo nyina nata nyoda ufe ye wolo momoli sotoke sinjando lumakoy bang duniya ta kana kolonto karjawle na juuno lawo mbele ɗo mon ndimɓe ala bulu miye wolo muna fɛnfɛn man tu jɛ wo hali to kuma so la kpe wolo. لا لا لا لا لا فلا لا إيه تاتكم من دار إذاعة غامبيا المرئية يعد ويقدم لكم أخوكم في الله إمام راتب الهادي شرن علي الماسكا وكي سيدان دي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطبة بيغا خام نبي يلن كوي جلي تي جمع جمع جي كين فادي كي كو فاي جلي دي جي ار تي اس خام نه اجمع بي موم لا ني تك خطبة بوبو لو موديل سي وات تاي bi nga xam ne mooy def xutba bi la mooy seen mbokk imam ratib alaaji cerno alin maska wal xutbatul yowma tataallaqu fi mawdui siyaami ramadan xutba bi tey mu ngi aju ci or weeru koor weer la woo xam ne weeru barke la yàlla farataal ko ci xeet wi ni mu ko farataale ci xeet yi jiitu woon ni mu ko waxee ci alquran ne a alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaquun farataal nañ ci yéen koor niñ ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu woon ndax ngeen jëlee ci li ñuy wax ragal yàlla ragal yàlla na boo ko xasee def am nga jikko bi gën ci jikko yi mooy tax jaam bi jege yàlla mooy tax jaam bi yeyoo bépp teraanga bu yàlla di teralee jaamam bu mu gërëm kon loolu moo tax ko nekk loo xam ne lu bari njëriñ la muy weer woo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min an naar mu ne njël benn gi yërmande la digg bi jéggal bàkkaar ba seet la mujj gi mooy gore ci sabara kon fukk yu njëkk yi mooy rahmatullahi yërmande yàlla kon loolu bu ñëwalee nit nga am yërmande yàlla am yàlla jéggal la say bàkkaan nga set toppatuñ la dara nga jógee ko ca am gore ci safara kon weer la woo xam ne weeru barke la moo tax yonent saa sallam wax ne law alimat ummati maa fi ramadana min xayrin la tamanna an takuna jannatu kulluha ramadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne te konte ne xeet wi xam nañ li nga xam ne moom la ñeexal ñu war koo amee ci weeru koor lim leen indil ci yiw lim leen indil ci jàmm lim leen di indil ci barke lim leen di indil ci mucc ak teraanga ngërmaande yàlla yu yaatu yooyu yàlla ëmb ko ci biir weer koor defal leen ko ci njëriñ yooyu suñ ko xamoon dëgg-dëgg xam kon la tamannaan takuna sannata kulla ramadan kon dañ doon mébét di ñaan yàlla at mi yépp nekk di weeru koor kon weeru noonu la yaatoo noonu la barke su ko feeñu wat ko séentu bu baax bu ñëwee nii bañ dugg ci ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim ñu ngi ñaan yàlla matal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin kon ci kaw loolu ñu ngi ndokkeel xeet bi yépp al ummal islamiya fi alamil islam mboolem fu julli ne ci àddina bi ñu ngi lay ndokkeel ci weeru yàlla wu tedd bi nga xam ne jagleel na ko xeet bi su ko defee kon loolu ndokkeel gi nag xaasal ci suñu réew ñu ngi ndokkeel waa réew mi yépp waaye ki ñu ci jiital mooy ki nekk ci bopp réew mi di seex professeur docteur Yaya Ejeje Jammeh Nasruddin nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi di jullit di koo xam ne kii ku am yitte la bari teraanga yoo xam ne mu ngi koy def di ko defal jullit ñi rawatina ci manasik yi mooy ci lan mooy ci mawasimu jaamu yàlla yi si si ñi nga xam jaamu yàlla def ci poor lu mel ni koor gi ngeen teraanga yim ciy def di ko jëmee ci jaamu yàlla yi ci jullit ñi bari lool naka noonu itam bu aj jotee gi ngeen teraanga yi muy def ci ay biyey màkka yoo xam ne di yóbbu nit ñi màkka kon yooyu yëpp teraanga la yoo xam ne dimbale islam bi la dimbale umma bi la waaye nag yàlla buur bu maandu la kum natta fay du la liggéeyloo képp ku yàlla liggéeyloo may la chance yi def liggéey ba nga góorgóorlu def ko ngir yàlla yàlla moo lay fayal boppam te pay googule lu yaatu la rawatina ci weeru koor wi nga xam ne yàlla wax subhaanahu wa taala ci hadis wax na ne kullu amalim ne aadama lahoo ila sawmu fa innahu lii fa ana ajsi bii subhaanahu wa taala mu ne jëfi doomu aadama yépp lu nekk ñeel na ko waaw ñu war ko koo fay man nañ koo jaarale ci keneen mu yegsi ci moom bem des koor koor yàlla na man maa ko moom maay fay koor kon koor foor na foor goo xam ne yàlla du wàkkil sax koo xam ne moo koy jottali ci borom waaye mooy méngoo fay ga kon loolu jaar nañu góorgóorlu ci weeru koor wi bu baax a baax a baax ndax weer la woo xam ne li ci yàlla def bari na lool ñu ne naw mu saa imi wa sumtuhu tasbihun wa sambuhu maxfurun wa duhaauhu mustajabun wa amalu mudaayifun mu ne kon koor nekk na loo xam ne li ci ne bari na lool ñeel doomu aadama mu ne naw mu saa imi ibaada nelawi aji woor jaamu yàlla la kon buy nelaw ñu ngi koy bindal tiyaa booy ku yeewu di jaamu yàlla naka noonu nag wa sumtu tasbihun noppi gi mu noppi waxul su noppee noppi ga ñu koy bindal yoolab kuy sàbbaal yàlla kon noppeem sa yoolab sàbbaal moom la cay jëlee wa sambu wa maxfuurun bàkkaaram dañ ko koy jéggal ci weeru koor mu nekk lu rëy a rëy wa duwaa wa mustajaabun ñaani aji woor yàlla du ko delloo lum ñaan yàlla day nangu ñaanam naka noonu nag wa amaluhu mudaafun jëfam dañ koy fulande di ko dogul fekkee def na lu baax lu dul weeru koor jasaaw asanaati basri am saaliha fay benn jëf ju baax yàlla ngi koy faye benn fuk su fekkee ni ki dul weeru koor waaye isa kaana fi ramadan fekkee na ci weeru koor la ñu ngi koy fayee sabina juróom ñaar fukk moom lañ koy fayee sebinti pasen noonu lay toll kon nag saarun man salla fihi man adda fi faridatan kaana lahu sabina farida fii ma siwa la boo jullee farata boo julli ci weeru koor ñu bindal la juróom-ñaar fukki farata ci beneen weer bu dul moom naka noonu man